waaw yi moom nu ma ko gisee kaar daal fi mu nekk nii bëriwul xamuñ ndax dana bëri wala du bëri ñii naan dana ñëw ñi naan du ñëw ñii naan bari na ñii naan bëriwul waaw ñun nag daana ëpp nii ci li ñu yaakaar rek parce que ñii dem ci àll ba mooy euh, suñu mbokk yi eh, jógee Mauritanie wala suñu mbokk yi jógee Mali ah ñii naan kar am na foofu ñii naan kar amul foofu kar nag tawul fenn parce que prix bi bokul ah, waaw am na cent mille am na cent dix mille am na cent quarante mille am na cent cinquante mille am na quatre-vingt-dix quatre-vingt-cinq waaw wante kar moom pour kar cinquante mille moom loolu moom lu jafele man maa ngi tudd Djibi Ba jiite éleveur national yi nga xam ne ñoo ne Foirail di Sébikotane sant yàlla rek rek mbas bi moom ah, lim benn àddina bi yëpp. limbe na àddina bi yëpp ba tax na euh, fii incha allah dinañu respect mooy barrière yi nga xam ne bi wax nañ ko xar moom xar moom mu ngi ñëw xar dina ñëw incha allah xar dina ñëw waaye xar yi ñu ngi dépendre ci ci client yi parce que su fekkente ne client yi jënduñu ni ñu waree te léegi dara du ump xar yaa ngi frontière bi taxaw xar yombul xar yombul mais xar seerul quand même parce que xar yi dañoo xar yi ngay gis fii ñu suur yëpp dañoo lekk fere dañoo lekk xaalis dañoo lekk xaalis bu bëri et ba tax na ba tax na léegi gars yi dañuy foog ne yoo seer na mais xar yi seerul man maay Saliou Dieng président fora bu seew xay di Ngunjaan xar yi ñi ngi ñëw kall xar dina am certainement loolu mu la wax ci xar yi ni la prix bi su nit ñi jëndee ñu woo xar yi ñu ñëw moo ci nekk position yi ñu ngi jàppale maire bi bari na parce que ndox manqué wu fi dara manqué wu fi ci li nu maire yi jàppale mi ngi ñuy jàppale bu baax sécurité bi ñëw na léegi yaa ko gis nii sécurité bi moom ñëw na léegi maire yi li mu nu jàppalee mi ngi ñu jàppale ci ndox mi douche yi lépp jàppale nañ ci. kii mooy Amadou Sow. Eh, li ma xam si affaire programme opération tabaski. dafa am ay jamana boo ñëwee fii heure yi foo kool kar la même daaw heure yi kar yi dafa fees bon ren nag mbas mi moo yokk programme kar yi ni ñu doon engagé defu ñu ko ren mais bu soobee yàlla dana ñëw parce que bi ñu bi ñu bi ak léegi yàggul démb rek am na fukki camion yu wàcc Madina Njaay be am na yeneen fukk yu ñu ngi gennaaw dégg bi am na kadi fukki camion ak benn jot naa renseignement mu ngi jeema ah yooyu yëpp dañu leen war a dugal fii ak ñaari fan ñetti fan. waaye am nañ luy wax ñun sugu ko diis dana la wax ministre bi ñun am na jafe-jafe yéen wàcc na arrêté yéen wàcc na arrêté arrêté bi wàccool fii Kër Ousmane Ngoundiane wàccool fii Kër Ousmane Ngoundiane arrêté bi. lan 000 manqué wax ci arrêté bi 7000 francs timbar. 10 000 10 000 francs ci Bash 10 jours. 7000 francs bar, 10 000 francs bâche à quel titre. Kora Kora Botal Kora. Kora. gouverneur gouverneur. On est fini par rapport à l'instruction fii nii mbaar dañ koy loué à 7500 francs. 7000 francs 7000 francs. bâche ampoule ampoule ampoule kora 10 000 francs 10 000 francs nous ngi fay at bu le maire. 10 000 francs bay doom bi fukki dërëm léegi ñun am na robinet suñu bopp 20 litres fukki dërëm loolu bu fekkee réew bi ñaari réew la ñu bëgg a xam ko tey bu fekkee arrêté bi wàcc نو اتعرتيب آه، مجي وخر سيرنا سيرنا ساكو سيميل الفرانكوي رك المالي دوز ميل مبقى ليه ميل سيانسا لولو عمنا عنابة دقنا ولا دقنا يون جافا جافا ندخ منستر منستر منستر منستر عمنا لموتي دنا لجوي تاي انك دكار عاكيو alors duma dugg ci détail yu donc fukki dërëm la bidon wala leneen loolu donc amul lu ñu mënula waxtaane wante nag asifor bi su donc mi ngi produire ndox mi amna facteur de production kon ki koy utiliser foog mo am minimum bo xam ki na maintenant li nga xamee mom lañu def moy def nañ lepp ba mu accessible partout ndox mi est accessible maintenant la nga xamee ni moo ci courant bi aussi à chaque fois donc ça euh, bu daral bi joté 15-20 jours avant donc dañuy ki en relation avec Sénélec ñu def des branchements provisoires nga xamee ni donc dinañ soxla donc euh, du matériel dinañ soxla du personnel ñooñu yëpp ñu def installation bi partout mou accessible Lolo aussi ay facteur la donc euh, dañuy fay c'est dañuy fay ñi nga xam ne ñooy def installation yeeg yooyu yo. Voilà, voilà Minimum minimum boobu. Mhm. moom la président ne bu mu fi am. Mhm. parce que l'air circulaire bi leer na. Mhm. dene au niveau des frontières. au niveau des axes routiers. au niveau des points de vente. amul dërëm boo xam ne dañ ko war a fayeeku ñi nga xam dañuy ñëw di jaay pour lan pour appeler les gens en tant que consommateur les man en tant que consommateur appeler l'ensemble des consommateurs sénégalais motax yombal yoy am déjà nous avons mbar ci 17500 non non non 7000 pardon pardon 7500 ñu né 10 10000 au nom de quoi Nous duñu parce que nous avons dañuy def ay effort yu am à la base pour des considérations locales am nuñu taxawé lolu tey ci tey li ñuy def ni ñun ko kenn ne ci ñun da déjà bidon bi francs je sais pas de toute façon c'est les informations que j'ai reçues tout de suite mm-hmm. man solo mm-hmm. solo man bëgg ngeen waxtaan nga ne sais pas du kenn parce que lu ngeen ci mm-hmm. moo jaaykatu xar yi muy Mauritanie muy Malien muy sénégalais mm-hmm. ñoom aussi ci consommateur sénégalais bi lañ koy delloo. Mm-hmm. kon su président jëlee ay mesures yu am solo yu mel nii. Mm-hmm. ngir jàppale askan wi. man damay ne yéen ñi nga xam ne yéen a nekk au niveau des collectivités territoriales. yéen a ci war a jiitu def ci seen kéemtulaay kattan. c'est vrai c'est pas évident toutes les charges fu ngeen di toll. n'est pas évident que mën ko supporter yëpp mhm. mais si vous gis waxtan y a des contraintes financières yo xamné des poser problème vous êtes obligé de répercuter wu ko ci mais suñ ci tollé ci CRD vous yoyu ngén teg ko ci table ngén gouverneur préfet ah une circulaire génn na ñun pour ñu mën ko mettre en œuvre et sur toute la ligne il faut telle chose telle chose telle chose mhm. on s'adresse à la Sénélec on leur demande ñu branchement spécifique je ne veux pas vous couper monsieur le Président. si vous permettez. justement donc euh, da point c'est très important depuis trois ou quatre ans ce sont les mêmes choses qu'on répète au CRD que ce soit l'accompagnement que la commune comme Gundian, doit avoir de la part de l'État pour prendre en charge tout ce que nous sommes en train de prendre en charge depuis des années hein, ça, ne commence pas d'aujourd'hui donc que ce soit euh, Walundormi, euh, Waloukourambi wàllu aménagement bi les toilettes mobiles chaque année dañ koy laaj mosuñ ko am donc point yi yëpp ma la wax amul lenn loo xam ni état bi mës na ci fekk commune Ngoundiane pour mu mën a supporter le poids de l' investissement bi ñuy def investissement bi nag wax naa ko daral bi day bouger gis nga toilettes yi daawuñu defar des toilettes mobiles des toilettes en dur lañ doon defar mais su nekkee de seeren su déplacé wu on va refaire des toilettes on refait les robinets parce que donc sous bougé robinet est encore donc installé donc socobolé soo ko euh, donc on n'a aucun accompagnement de l'État pour une collectivité locale wax ko euh, ressources yi ñu avons en tant que commune avec la chaîne ça a beaucoup impacté nos nos budgets maanaam suñu budget yi sel bi tax na donc fi ni ne nii euh, su doon doon nañ am fukk daanaka ñetti dërëm yi amatuñ ko nga corona bi lu ñu waroon a jot au minimum donc jotuñu dara kon loolu nekkul raison peut-être ñu kii wante on est toujours la fii lañ mos a nekk pour ànd ak état pour dimbali ñi nga xam ne mooy les acteurs pour ñu mën a am li ñu kii. léegi nag dinañ def lépp ba lépp accessible amul lu ñu mënul discuter nag prix bi su dee dañu ne seer na lan la mën nañ koo nangu mais quand même suñu état ne du ngeen fayeeku dara la on va dina dinañu wóor ni daanaka duñu mën daal loolu rek laa bëggoon a wax là aussi dama lay rectifier waaw su leen état ne du ngeen feeku dara mhm. c'est parce que du ngeen feeku dara un franc mhm. vous n'avez pas le droit mhm. le reste comme je l'ai dit su ay jafe-jafe amee solution war nañ ko wut des stratégies jafe-jafe am je suis d'accord bari na mais mais man je veux juste qu'on soit quand même qu'on se comprenne un tout petit peu su état ne amul dërëm bu ñu war a feyeeku ça si si vous avez des problèmes à votre niveau mais vous les transmettez. On les a toujours transmis. S'ils ne font rien du tout, ils ne obligé pas obligés de def sachez une chose ce que vous faites, c'est que la le di le la Kidira di def point de vente yi ñu dem hormis Dakar c'est le ministère de l'élevage qui prend en charge les aménagements sur toute la ligne c'est les maires c'est les collectivités territoriales qui s'en chargent et de façon gratuite à l'endroit des, consommateurs sénégalais, à l'endroit des opérateurs. Mais là, je me dis que ne peut pas être une exception. Ah et là, il va falloir y réfléchir ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, mhm. c'est qu'on puisse quand même dérouler, mettre en œuvre à la lettre mhm. les instructions du président de la République par rapport à...